acca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk nag bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk euh, sa waay amaat li di kontaan ak mbégte bu baax nag fas yéene dalaat beneen kilifa nga xam ne kàngam la saa su nekk suñ ko fi dalalee ñuy waxtaan ci xam-xam kooku mooy Cheikh Mohamed ñas euh, tey nag dinañ waxtaan ci xam-xam waaye dinañ yaatal ci xew-xew jamono. kilifa gi laata may def lenn damay bàyyi ngën yook mbokk askan wi te di naan gars yi namoon nañ la bisimilah aouzu billahi min seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin laa hawla wala quwata illa billah subhaana la ilma lana illa ma alamtalana innaka anta alimul hakim rabbi ashrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñu ngi leen nuyu ku ci nekk sa tur di la wàccee sa wàccuwaay di leen nuyu yéen nga xamante yéen waa 221 people nga xamante ni bërëb bi ñëpp xàmmee nañ ma fi miin nañ ma fi su ma fa toogee duñu wax ne kii kan la ñu ngi leen nuyu di leen wax ngeen dal ak jàmm. jërëjëf Cheikh Mouhamed Niass ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw seeni set yooyu tànd ak daal ñuy kontaan bu baax acca fas yéene waxtaan ci xam-xam lu toll ci juróomi ponk jàpp juróom benn ponk ci ñaan ak paj bi nga xam ne saa su nekk yaa ngi ciy def résultat waaye dinañ waxtaan ci li nga gis ni ki le 17 nga xam ne cour suprême bi waa CEDEAO ci la ñuy waddal li nga xam ne ñu ngi koy xaar ndax président Ousmane Sonko Euh, dina génn ci guddi bu bët setagut bi la wala ñoom ndax mën nañ ci am ndam ci li nga xam ne ñu ngi koy dëgmal waaye dinañ waxtaan ci làmb ji dox ci diggante Lac de ak kii di Siteu su ngeen bëggee xam kii daan ak la fay xew lépp fexe leen ñoo topp ba vidéo bi jeex ndax di ngeen fi dégg révélation yu am solo cheikh bi daam foo xam ne foofu laa namoon ñu tàmbalee mu di ci bunt bi ni ko gars yi di waxee mu di seet bu am solo bi nga xam ne ya ngi koy def. alhamdulilah rabbil alamin cheikh comme nu ma ko waxee ak nu ma ko yàggee laaj rek muy mbiri seet seet moom boo déggoon a yére bu ñu sol la jamono ji fi mu toll nii soloon nañ ma ko ndaxte lu nekk maa ngi ciy def lu nekk maa ngi ciy wax doomu aadama bu nekk lépp loo xamante ne mu ngi lay réer ci seet saa boo jàkkaaroo ak Cheikh wala nga woo ko bu soobee boo jàkkaaroo mu dalay wax xamante ni jaar nga fu nekk mënuñ la kaa wax mbiri Cheikh dafa nekk loo xamante ni lu ñu xam la wala am na loo xamante ni maayka yàlla lay nekk nekkul lu ñuy làmbatu doomu aadama yi fi mu toll nii jaaxla nañ soo amee jaaxla nag ba ñëw ki sëriñ bépp koo mën a ñëw mu toog na la cheikh la wala sëriñ la bu ñëwee toog jaakaar la yow su xamut yaa ngi dégg na la wax na xamuma wala mu yebale si ki nga xamante ni moom moo xam waaye fi ñu toll nii cheikh am na foo xamante si danaa si wax ak yéen maanaam télé bi fi ñu toll nii wala fi nga xamante ni moom mooy émission yi da nga siy gis doomu aadama bu nekk mu toog jàkkaarloog tele yi di wax lu ko neex ba fa nga xamante ni dañuy jël sëriñ si yëpp jël leen boole leen ci benn gaal te duñ benn nekkul ku nekk rek dañ leen war a teg fii nga toog wax lu la neex fi ñu toll nii dafa bëri ay comédiens yoo xamante ni ñu ngi toog ci télé yi ñu nga xamante ni xamuñ sax nu ñuy bindee seen tur yaa ngi dégg loolu loolu yàlla yonent yàlla yàlla may moom moo xamante ni moom mënul bind turam yaa ngi dégg yàlla sol ko loo xamante ni moom rek la koy yekkibal waaye dafa am doomu aadama yoo xamante ni ñu ngi toog na sëriñ lañ buñ toogee ñu jox leen micro yi ñuy wax lu leen neex ndax xam nañ lii dañoo yor ay jinne dañoo yor ay nangam te buñ gisee sax yaana la bëy guddi sax danañ daw dafa am yoo xamante ni dafa rafetul moo tax moo tax soo gis ma toog fii yu mel noonu moo ko waral ndaxte dañuy dem ba nga xamante dañ lay yekkaale ci benn gaal goo xamante doo benn ñun nañ xam ay ñaankatu yàlla lañ lépp lu ñu waxal doomu aadama bi lu ñu xam la lépp loo xamante ñu ngi koy jëflante ak yow si mbiri seet ak lu mu mënta doon danañ la defal lépp loo xamante ne nii war nañ la kaa defal lépp loo xamante ni digg nañ la ko te danañ la ko jox ñun nag dañuy sabablu jàmm bi waaye yàlla moom mooy maye waaye alhamdulilah lépp loo nga xamante ni ñu ngi koy def si mbiri ñaan yàlla mi mbiri seet tegtal yoo xamante ni jox nañ la ko rek bu sooba yàlla boo ko defee da nga jàkkaarloog lépp boo wax nañ la ko waaye nag heure am da nga may ma cheikh déglu ma rek bu baax heure li am mooy doomu aadama yu bëri ñu ngi jëflante ak doomu ay nit ay sëriñ yu ñu wax ay sëriñ lañ ñu lay digal loo xamante ni benn ci sarax boo xamante ni nekkul sa sarax nga nekk koo xamante ni yaa nga amantul ak si niw ñu jox la sarax yoo xam du sa sarax banka laalee da lay gën a tëj waaw nit ki nekk nag da xam danga war a xam bidiwam xam tabiam xam fu nga xamante ni foo koy jaar nit ñi dañoo war a duggee néegi si bunt yi ñun làmbatuwuñ ñun ay sëriñ lañ xam nañ fu ñu war a xamee te jàng nañ lépp loo xamante ni yaa ñu koy laaj sa xam-xam danañ la ko tontu gannaaw bu war a gannaaw buñ toogee fii di jàkkaarloog àddina bi yëpp lu waral toog fii nii suñ toogee làqatu tamit suñ ruxu nit ñi ñu siy fekk si waaye am nañ ñoo xamante ñu ngi si bitim réew fi nekk xëy na seen tànk mënu yegg si fi léegi li tax ñuy toog di jàkkaar di wax ak ñoom mooy ne dañoo bëgg ñoom tamit soxla nañ lu baax te soxla nañ koo xamante ni tey jii nii suñ jàkkaarloog moom wala buñ jëflanteeg moom seen aajo dana faju kon nag loolu moo waral ñuy toog fii nii waaye bu nekkoon na mbiri am alal rek la wala si mbiri jëf rek la wala mbiri nit yi alhamdulilah fuñ toog nii nit ñi ñuy ñëw ñu ngi jëflanteeg doomu aadama te ñu ngi leen dimbali si mbiri ñaan yàlla si mbiri seet képp ku bëgg seet bu leer incha allah Cheikh Mouhamed a ngi nii woo ko jërëjëf cheikh bi acca dañuy ñëw doxal ci ñi nga xam ne dañuy jaay ay matériel euh, bëgg mu jaar lu ci mel ni kër ba ci terrain yi waaye ñi nga xam ne dañoo bëgg a siiw te ameetuñu noonu xorom dañuy bëgg ñu dégg leen ba ku ñu dëgg ma rek euh, di nga mën a safanteeg ñi nga xam ne dañuy jëflanteeg ñoom loolu bëgg naa ñu del siwaat ñi nga ciy def ñaanu bayre bu am solo waa alhamdulilah cheikh maanaam bayre moom ñun fu nga xamante ni man cheikh mohamed mi toog di wax ak yéen fu ma dëkk sax am na bayre ndaxte bayra moom dañ ko fay dama yàlla baal si kàddu gi waaye dañ ko fay foyee am na yenn bind yoo xamante ni xale yi dañuy toog béq ko def ko lu ñu koy def képp koo xamante ni ñàkk nga bayra wala ñàkk nga xorom ba foo dugg sa nit ñi duñ xam ne yaa ngi toog foofu noonu nit bind xale yi ndaw bu gën a ndaw foofu mooy suñu dëkkuwaay ñu ngi foyee bayre képp koo xamante soxla nga ko wala nga soxla lu si mel ni bayre njaay la jox loo xamante looy sangoo la boo ko sangoo bu neexee yàlla jox la loo xam da nga sa place bi soo xëyee suba teel incha allah danañ la jox lii nga xamante mooy lii mi nga xamante moom nga koy euh, wis sa biir place bu soobee yàlla incha allah waxi bayre moom doo acca euh, ñëwal ma ci impuissance sexuelle mu di néew kàttan boobu it euh, xam naa ñàkk ci jëflante gaa yi wóorut ndax ni borom am na sirru bu wër boo xam ne dénk na la ci ñëwal ma ci waaw garabi kàttan gi moom ñëpp xammee nañ ko damay def ni ñi gis ko maanaam ñëpp xammee nañ ko boo bi moom man rek maag si am kolu ma ci dafa vide po vide la benn dara moo dara la moo ci nekk mooy suuf nga xamante ni moom mooy sungu fi ngóor bi amul benn effet secondaire boo xamante nekk na si man def naa fi benn kii boo xam ne toog naa fi jàkkaaroo ak yëpp di ko ñam mook garab bi nga xamante ni moom mooy dindi ndox siti moom mooy dindi ndox siti moom mooy dindi humeur lépp lay dindi tey lu si bari nag wàllu ngóor yi cheikh ñu koy ñàkk ñu bëri lu koy waral moom mooy ne dañu am problème yi euh, ndoxi siti wala ñu am problème yi émir yi loolu mooy daw ba nga xamante ne moom mooy yegg seen seen ngóor gi te incha allah garab bi moom nekk na garab boo xam ne cheikh mun naa kaa ñam àdduna bi yëpp di ko gis xam nga waa bitel bi dañ kaa teg nii pour mu nekk échantillon waaye nekk na loo xamante ni lu bëri la tax table bi lépp xaju si te am am na yoo xamante suñ ko tegoon fii tey jii mun naa am tey jii du xaj ci palaat bi moo tax ñu teg def ay échantillon tegal la garab bii nii moo nekk garab bi nga xam ne mooy garab bi hémorroïde bi te dafay dindi ndoxasiti lépp loo xamante ne lu nekk sa biir yaram di lay yàqal si sa wàllu ngóor wala dara soo ko dee nag ko raxal ba mu set soo jëlee pot bi ñu nekk mi nga xam ne mooy garabu ngóor bi boo ko booleeg moom waxuma la waaye yow képp koo xamante ni yaa ngi koy nam o pour di nga si fay sa xaalis ay loo ko mën da fay bés boobu nga koy gëj jox fukki dërëm ndaxte boo jàkkaaroo Cheikh Mohamed Niass ba mu jox la garabam yi yooyu jeex na bisimilah ma ñamal la nga xool lu baaxul képp koo xamante ni yaa ngi koy gis mu ngi teg taabul bi fii nii dina day faj nit ñi te lu mu teg ñamu kaa naan wala ñamu kaa ñam cheikh bi nañu waxante loolu du dëgg loolu du dëgg te ñun lépp loo xam ne ko teg taabul bi fii mun nañ kaa naan ndaxte ñun ñoo koy liggéey ay garab yu wér la yoo xamante ni nga xamante ni ñooy borom di ko defar sax dañ kiy dañ koy dañ koy laal kon nag lu bon nag xanaa ni ko nag du yéene boom lu bon wax dëgg yàlla képp koo xamante ni am nga problème ngóor a wala problème city wala émuri soo sooba yàlla bu ñu jëfalante da nga xam jërëjëf kooku mooy Cheikh Mouhamed ñas nee naa leen euh, du doon ko xam ne da jot ndax numéro bi mooy daw na suufu barre d'écran bi acca ñëwal ma ci ñinga xam ne dañoo bëgg wàllum papier ndax suñ ko waxee seeni xel yi da jëm nekk ca ña nga xam ne ñu nga fa xaw a tàgga témbe ñàkk kayit moo tax waaye ñi ci réew mi di koy sàkku saa su nekk di ci am jafe-jafe waaw Cheikh papier moom yàgg nañ say liggéey fi ñu toll lu nga ma laajoon nga may laajaan rek ndaxte àddina bi xam nañ place bi ma toog bërëb bi ma toog xam naa ne fii moom ñëpp xàmmee nañ ma fi mhm. yaakaar a man rek maa fi toog du wax si saal bu mel nii waaw ñu ngi nekkuñ yoo xam ne tamit dañoo sonn wala sëriñ yoo xamante ni tamit dañuy wër di daw ci kaw nit ñi mhm. suñu ruq yi nekk yàgg nañ fi yàgg nañ fee toog teraanga gu nekk mu ngi ñu fiy fekk yaa ngi dégg nekk nañ sëriñ yoo xamante ni tamit dañuy liggéey ci zaaxir dañuy liggéey ci baatin mhm. yaa ngi dégg waa dafa am loo xamante ni mooy ne wàllu pape yi cheikh dafa dafa yomba dafa yomba rek le te jafe ne lu bëri lu may wax nañuy jaar si bunt yi liggéey dafa am yoon ñaan yàlla dafa am yoon mm-hmm. nit ki soo jëflanteek ñun dañuy ñaan utloo papier bu neexee yàlla gannaaw bu ñu la seetalee say mbir ba pare ba jox la say tegtal ba yóbbantal li nga xamante ni moom nga war laal sa yaram bi lu ci des danañ téye sa course liggéey ko fii nii bu nekkee dugal nga papier bi dañ lay jox garantie yu nga xamante ni moom la war a diire su bot du mat weer bu nga xamante ni bu ta jotoo sa papier bu neexee yàlla loolu moom lu wér la képp koo xamante ne am nga problème papier wala nga nekk Sénégal gi sax may wax nii bëgg a jënd dëkk bi bu neexee yàlla incha allah rabbi mbiri papier moom buñ si jëflantee incha allahu rabbi da nga ma oo gërëm sa fukk loxo ak juróom bu neexee yàlla loolu lu ma la mën a wax sax moom mooy ne li tax ñu gëj ñoo gis tamit Cheikh lu ko waral mooy voyage bi yàgg rek nekk ci nekk bi xam nga sëriñ moom moomul toog te xam-xam moom dañ koy yokk a xam ñëpp rek am na la fu ñu toll li ñu wax wa fawqa kulli zi ilmin alim képp ko xam rek am na ku la gën a xam moo tax nag ñun suñu xam-xam fu ñu toll ñu ngi koy jéem a amu yoore ñun rus nañ ñuy oo ñu ñaan lu ñu yàlla pare loolu noonu yàlla mooy nangu nag waaye rus nañ ñu ñuy oo di ñu sant loo xamante ni duñ ko gis wala ñuy ñaan loo loo xamante ni duñ leen ko defal loolu moo tax fu ñu toll ñu ngi góorgóorlu yokk xam-xam yi di yokk itte yi mu ngi noonu atia daanaa la dalal fa ñuy jeexale bokk na ci xew-xew jamono daanañ waxtaan ci président Ousmane Sonko ñu bëri di la ci bàyyi xel am loo xam ne suñu borom mu ngi la ci doon suturaal waaye ba léegi gis nga ko mu ngi ci ndungu si mu ngi ci kaso bi ba léegi ni ki la ñu war a déglu lii di cour suprême bu aw ba xam nu wànnente bu jëkk gëtëm ndax loolu yaakaar nga waa Pastef président Ousmane Sonko dina fa amee ndam Cheikh Sonko Ousmane Sonko lépp loo xamante ne waxoon naa ci tey gis nañ ko wax naa ko man ngi dama waxtaanee tey rek ak xale yi lépp loo xamante ni wax nañ ko si gis nañ ko Ousmane Sonko lu ma waxoon demoon na ba jub 16 bi waaye bu ma toogee fi lu ma la mujjoon wax mooy ne il faut nag mu si nga boo cawee ba caw may la wala ba caw tax la ñëpp xam la wàññil coow loolu noonu nga reculer tuuti bu ko defee lu si nga defar sa yaram ñaan lu yàlla nga jot war jot waaye coow moo ko arrangé wutoon yàgg naa ko bëgguma di wax ay mbiram bëgguma di si guddal wax yàlla ndaxte ñu ngi ko mu ngi nekk tey jii nii foo xamante ni kenn yéenewu fa kenn ñu ngi ñaan yàlla yàlla yénnee ko fa si barke Seydina Muhammad ah foofu moom jurul ma si loolu moom jurul ma ciy wax lenn mbiri mbir yooyu moom jurul ma ci waxoon naa la bu yàgg ne maanaam lii nii lii nii waruñ fa wan a yegg yaa ngi dégg si kaw ma waxee lu ma waxoon bañ suñ ma si déglu woon jamono jii ne fii nañu yegg duñ fa yegg lu si desoon mooy toog élection jot mu dox ndànk dem toog dugg si palais bi toog waaye nag lu ñu wax rek lu ëpp rek dafay tuuru mbir dafa mujj ëpp moo ko jural lii yëpp ñu ngi koy ñaan yàlla lu ma la wax rek xat-xat yu yàlla génne ko ci wasalaam aju mooy gisuñ si dara ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla dimbale ko def ko lu gën ci moom yaa rabbi si barke seen maam bokk bi moom gis na ma ne ñu ngi koy ñaanal yàlla gannaaw si xat-xat la nekk yàlla génne ko si lëndëm yu mu nekk si barke seen ma jullit bi nekk loola war a ñaanal mbërëm mbërëm jullitam waaw. gannaaw bañ toxoo foofu kan nga gis mu doon président ci réew mi. élection yi danaa la ci waxaat incha allah. dana la jërëjëf acca comme ni nga ko daan defee ñu ci gis ay tawféex jëme ko ci làmb ji bi dox ci diggante Lac de Guiers ak kii di sita bëgg nañoo xam kii daan bëgg nañu wax ak euh, li nga xamante ni gannaaw si jàllee mbal wala politique yi mooy moom si na bàyyi ñi nga xamante ni foofu lañ sosoo te ñëpp foofu la ñu xamee Cheikh na dafa nekk dëkk boo xamante ni nekkul dëkk bu ndaw su gàmmu jotee àdduna bi yëpp fay daje bépp xeet yaa ngi dégg ci kaw suuf rek maanaam mbid na nga koy gis am na loo xamante ni bàyyi ngees rek moo moo ko mën ndaxte xeet yoo xamante ni maanaam ku demoon seen dëkk bëgg leen a jéem a découvrir ci jamono ji may wax nii nii bu taxatoon ak bàyyi lu mu fa du fa teg sa tànk ndaxte ñoo ngay xool seen kanam sax xam ne ñi ñoom baay rek ñoo mën si ñoom dara kon nag dëkk bu mel noonu warul xew may dégg ñu ne président yónnee na fa ab 40 million yaa ngi dégg pour xalifa bi xalifa bi li muy dépensé chaque jour mën na fukk millions yaa ngi dégg xalifa Baye Niass nekkul ay caaxaan président la ñu wax bëgg nañ mu gesu Medina bu baax a baax dimbalante xalifa parce que ñu nekk si ginnaawam dañoo bëri dañoo dafa njaboot boole ci tamit am na lu ma gën a métti mooy mosuma gis yaa ngi dégg ñu jéem a inauguré dara Medina Cheikh ma président Macky Sall li caw li caw li bëri bëri bëri mosul inauguré dara mosu mosuma fekkee benn inauguration Medina këri gan gay ñu fay dégg dafa dem na ba nga xamante ne pare na mu doog see mottali mottali la def lu ñu koy wax nag mu bàyyi xel Medina te Medina dëkku ñaan yàlla la dëkk waay wàllu yàlla dëkk Cheikh Ibrahima Niass la Cheikh Ibrahima Niass képp koo xam képp ko xamante ni da ngay na xamoo ko rek danga ngaa fekk jénnoo Sénégal ñu bëri buñ jénnee fii ne santam bi la ñu uyoo nañ jàll ci leneen ñëwal ma ci dox ci diggante Ama Baldé Siteu kii daal làmb bugguma lay si wax làmb man rek maa toog fii Cheikh wax la si lu ma la siy wax maa man rek maa toog fii man a wax la si ku nekk ngi toog di làmbatu lamb ku nekk ngi toog di xam nga lamb lambatu la tudd waaye ku nekk ngi toog di lambatu ci télé yi di wax naan diw dafay daane mais soo xamee da ngay wax ne diw mooy daan te nii la koy man nag maa fi mos a toog na la Balla Gaye ak Boy na Balla Gaye day daano te waxuma la ko benn waxuma la ko ñaar waxuma la ko ñett ñetti yoon laa la ko wax amul benn sëriñ bu mos a toog fii ñu ne mën sëriñ la toog na la contre Boy Niang Balla Gaye Boy Niang kenn ñamutoon a toog fii di wax si loolu parce que fu Balla Gaye turam yegg at yàlla lu mu ko may ci bayre at yàlla lu mu ko may ci bëre muy bëre Boy Niang kenn mosul am yaakaar na Boy Niang dana ko daan waaye ñun bañ toogee seet lu ñu seet wéetal yàlla yàlla war na nooñu Boy Niang mooy daan waxoon nañ la Boy Niang Boy Niang mooy daan waaye nag fuñ toll ni affaire yu yooyu bëgguma di si waxaat ndax dafa am kilifa yu yoo xamante ni ñun ñooy suñuy kilifa ñaan nañu ci yàlla na bul di waxaat ci mbiri làmb ndax dafa nekk loo xamante ni soo waxee safaan wi mu ngay yàqal kenn ki nga xamante ni jël lu nekk ci alalam def ko ci yaa ngi loolu tas yaakaar la waaye am na yoo xamante ni soo ko xamee sax joruñu koy waaye lépp macha allah ñu ngi ko xam waaye maanaam mbiri làmb bugguma di si wax parce que damay yaakaar doomu aadama bi tey ji su ma la waxee ne la diw mooy daane tey ji lu mu bëggoon defee mën nga bàyyi waaye yaa ngi dégg mais am na loo xam ne kenn du ko wax ci kaw dama si wax la am na loo xam ne kenn du ko wax ci kaw du mën a wax diw moo gën a jekk wala kii moo gën a jekk di tas yaakaare beneen mbër bi yaa ngi dégg waaye dafa am loo xam la kenn du wax ci kaw yaa ngi mbaam du jur si mbooloo loolu lañ wax moo tax am na yoo xamante nii nag suñ ko waree ni ngi di dégg te lépp loo waxaa si ñu ngi dagg sa vidéo di di yeneen numéro yoo xamante ñoom ñooy sëriñ na ñooy sëriñ bi ngay xalaat waaw ma man du ma ragal var ndaxte man léegi ndeysaan cheikh bi ñun lu ñu war a xam ñu ngi xam lu war a ñaan yàlla ñu ngi koy lu bëri nekkul nag yàlla yàlla rek moom moo sañ a wax ne li dafay am mu am waaye ñun ñi nga xamante ne ay jaam lañ lu ñu def moom mooy ne suñu amee soxla bi ñu ko war a ñaan gannaaw bu ñu amee ay secret yu ñu rek ay mbóot ñu ak moom ñaan ko mu defal ñu ñuy gis lépp loo xamante ne may luñu ko ñu sant ko gërëmee ko lépp xamante may luñu ko ñu defaat beneen yoon xoolaat loolu mooy doomu aadama cheikh bi te nekkul bërëb si nekk lënd leen bési dañoo wutee ñaan yàlla tamit noonu la wutee tey ku la wax na nag chaque jour lu ma wax dafay am kooku waxul dëgg si làmb ji passé leer na la. am voilà tey daal daw nga sama question bi acca baal ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw yàlla Cheikh beneen yoon di gërëm di wax nit ñi comme ñu gëj woon a rek nekkoon si itte yi rek nekkoon ci biti yaa ngi dégg nekkul si loo xamante ni seen njëriñ la ñoom ñeel leen ndaxte yokku xam-xam yi dugg ci yeneen dëkk yu nga xamante ni yu fasantikoo la am na yoo xamante ni amul Sénégal waaye am na fa pour dem liggéeyanti leen ko indil leen ko teg ko ci table bi bu ko defee seen soxla di gën a gaaw a faju lépp loo xamante ne sant sant nañu ko yàlla duñu si may di sant ñëpp di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah